ba Seydou Ba de temps en temps bu élément yi jàllee ñu def tuuti jaw dëgg la euh, c'est humain <laughs> yëfi nit la rek <laughs> vous faites genre waaye euh, lu tax ngay jëw mais écoutez euh, <laughs> ñun ñëpp ñàkkul ni nit romb na ñu ne ko nii ah waaw oustaz yaa ko fi dàq léegi Alfi comme tey da fëlaale ñu bàyyi la nga euh, farcil ñu suñu ay poivron waaw Pape ci biir fëlaale bi noonu xam naa gars yi duñ comprendre fëlaale bi sax mais après dinañ ko expliquer euh, bu waaw bu lépp jeexee <laughs> ak sa noon bi nga àndaloon donc euh, les poivrons farcis yow ma doo ba ñu pare poivron farci à la feta <laughs> moom la ñu andi tey ñu topp toujours ci mouvement su recette de fête yi comme ni ko Pape waxee tout au long ce mois de décembre Euh, dinañ ko andi ak le beurre bocage wax naa ko sànq dajji naa benn beneen carton bu bees pour mën a am assez de beurre mën a terminer euh, recette yi ci jàmm euh, mu nekk les les beurre bocage nekk beurre doux yoo xamante ni da ngeen koy am ci marché bi mu nekk ay paquet yu 200 grammes yoo xamante ne soo ko dajjee da ngay gis ni beurre bu am teneur nga am parce que chaque matin damay bëgg dajji leen benn paquet en direct ngeen koy seetaan mu nekk beurre bu am teneur bu fekkee ay bûche de Noël nga bëgg defar ah beurre bocage a ngi fii ay fondant au chocolat beurre bocage mi ngi fii li nga xamante ni mooy ay crêpe ay gaufre euh, beurre bocage mi ngi fi ba ci euh, sunu lekk yi nga xamante ni moom lañ fi am muy ay fondé wak ay laax ak ay cere <laughs> soo jëlee beurre bocage da ngay am recette bu gën parce que dafay jël parfum ak odeur bi nga xamante ne moo si nekk daal di koy def ci biir recette bi dinañ ci gën a ñëw indi leen ay variété recette yoo xamante ne su ngeen ko amee ci seen ay placard euh, beurre bocage ba dootu fa yàgg parce que ndekki kase taxu koo jóg maanaam def ko ci ay mburu kase taxu koo jóg euh, recette yi tamit euh, daf siy dugg à 100 pour cent beurre bocage bi nag lu muy demee tey ci biir recette bi muy ay poivron farci à la feta ku ne feta xam ne fromage la mu nekk benn fromage crémeux bu saf boo xamante ne euh, lait de bi lañ ko defaree moom laa am nii ci plan de travail bi mën naa ko yëkkati. donc moom la ñu jël daggat ko damay jël lan nag sama viande hachée bi nga xam ne moom laa jot rosi viande hachée tomate farcie euh, épinard moom ngeen di seen mu verte noonu ci biir mu nekk ay produits fet produits de fête xam nga ni ku ne produit de fête nag xam ne dañuy jël produit yi gën a baax ci marché yi andi ko mu nekk ay foie ay somo xeetu euh, neex-neex yooyu nga xamante ne en général ci mois de décembre bi lay gën a dox yooyu yëpp dina ñëw tey ñu andi viande hachée daal di koy rossi def ci laaj euh, sànni ci tuuti soble def ci épinard def tomate farcie euh, def ci sauce soja sel poivre tuuti curcuma ak li nga xamante ni moom mooy coriandre en poudre donc bi ñu ko toggee nag ba mu ñor farce bi ça dépend mën nga jël poulet comme mën nga jël euh, viande pour mën a defar farce bi laataa may fay gaz bi damay jël tuuti ci fromage feta bi moitié bi def ko ci biir viande hachée bi donc dina ci ànd benn goût boo xamante ni benn goût bu crème la parce que ku ne fromage xam ni euh, calcium yi nga xam ne moom la suñu yaram soxla ci ay produits laitiers lañ koy jëlee entre autres euh, meew meew yi nga xam ne mu nga na li ma teg sama ginnaaw fromage wala ay produits laitiers donc mi ngoog donc feta bi su ñëwee dafay seey liyee yëpp def ci benn goût boo xamante ne wax naa ko léegi dafa nekk ay fromage yu am yu am goût donc bu ñuy euh, sàppali bañ nañ ci bàyyi xel donc bu ñu ñëwee nag ci poivron poivron euh, bokk na ci ay légumes yoo xamante ni ay légumes fraîcheur la. Euh, nii nga xamante ni été bi mi ngi waaj a jeex ñun tam dinañ ko jeexal en couleur. mu nekk poivron bu rouge ak bu jaune tey moom laa am mais jàppal ne poivron am nga bu ver am bu orange euh, mu nekk variété yoo xamante ni boo koy lekk euh, di nga am benn euh, fraîcheur en bouche ba noppi am vertu yi nga xam ne moom la la poivron di jox lu ci mel ni fàtte wala ngay naax booy jëfandikoo li nga xam ne moom mooy poivron du la yomb benn yoon maanaam ñi nga xamante ne seen xel dafa xaw a dem comme Pape Cheikh ñu leen di faral di di di jox ay recettes yu bëri poivron donc kii yaa xam naa mi ngi seetaan sama waa ji donc jàppal ni pap mi nga xam ne xel maa ngay waaj a dem boo koy boo bëggee xel mi dellu si da ngay utiliser poivron lu bëri ci sa cuisine donc li ñuy def mooy dañuy jël euh, poivron yi daal di koy farcir wax naa ko léegi farce bi mën na changé mën nañu jël bu am poulet jël bu am thon jël euh, yi nga xamante ni mën nañ def somo wala ñu def fois gras xeetu bagage yooyu nga xamante ni dina ñëw ci kanam Euh, daal di farcir poivron yi donc lii mu ñuy permettre nag mooy que dinañu mën a consommer ay légumes jay na ba ci ñi nga xamante ne xale yi en général du ñuy faral di lekk légumes donc recette yi dinañu permettre bu ñu koy lekk nga mën a lekkaale poivron bi en même temps parce que da am envie déguster li nekk ci biir lekkaale euh, légume bi donc mu nekk cinq fruits et légumes yoo xamante ne du ñu tàyyi di ko wax euh, benn yoon moo ñuy indil minéraux yi andil ñu vitamines yi nga xamante ne sunu yaram moom la soxla donc li ñuy des li ci des mooy que dañ koy enfourner daal di jëlaat deuxième fromage parce que man dama bëgg emmental donc moom laay ñëw tegaat ko ci kaw mu gratiné wu donc mu nekk ay recettes yoo xamante ni pap dugg na ci catégorie recette de fête parce que tamit euh, soo defee sa dend wala nga def sa poulet rôti pourquoi pas nga jël poivron yi def ko en entrée mu jiitu euh, dend bi wala mu jiitu poulet rôti yi nga xam ne moom la ñuy faral di togg en période de fête en période de fête ma taalaat four bi parce que foofu lay waaj a dem pour 15 minutes jàpp 20 minutes ba nga xamante ni gis nañ ñu poivron yi compoté ñu soog ko génnee daal di koy euh, dégusté li ñuy def nag mooy dañuy jëlaat tuuti fromage euh, emmental ak feta bi des daal di koy sànniwaat ci kaw laataa ñu koy enfourner pap au bout de 15 minutes bu génnee nga xam ne li ci kaw yëpp ñor na poivron bi fondant ñu génnee ko daal di koy lekk ak ceeb wala ñu lekk ko ak ay pâtes wala ñu lekk ko noonu kase sax pour mën a déguster euh, plus poivron farci à la fetaille pape toujours avec les beurres bocage mais jàppal ni bocage bi dinaa ci dagg quelques noix sànni ko ci kaw pour mu andi euh, effet brillant bi nga xamante ne moom la poivron yi di laaj donc moom laay terminer juste bàyyi la nga nga yeggali bu génnee ñu daal di koy déguster en privé Pape. mu ngoog ñu ngi gërëm bu baax euh, Alfie euh, donc c' est des repas de fête qu'elle nous propose euh, fii ba décembre bi jeex xool leen loolu ngeen duufal seen i bët xam naa ni lu ngeen ci mën a lekk sax waaye yàlla baax na. tuuti yàlla na rees ak jàmm. Alfi merci en tout cas lii moom waxuma la l'eau à la bouche rek. Mhm. ñu bëree ngi salivé. waaw mhm. ah, kay tax xam ci kooku yooyu am solo. télé ni mel voilà. <laughs>